kenn mënula ko def léegi doole boobu eneen kon mu yërëm ci mais doole bi da koy jëfandikoo à fin fins politiques nga yeew yow projet bu ay nit teg comme yow ni nga teg sa xalaat ñàkk seen alal seen ñàkk nga yeew nga ne loolu peut-être dissoudre parti bi mhm. man de mon point de vue personnel dissoudre nga ko mhm. ci ay këyit ci bëtu yoon mhm. mais loolu mi ngi exister ba léegi ndax ñi bëgg Ousmane Sonko da nga leen mën a dindi seen xol ñi bëgg Ousmane Sonko yëpp ndax loi yegg na foo xam ne dañ naan dissolution bi bu bu yeggee ci ñu nangu carte d'identité képp ku nekk Pastef rek man si laay gëm na nag dissolution bi dina def effet mais tant que mënuñu yegg foofu rek c'est là où ça devient extrêmement très dangereux moo tax ma ne la problème mu Ousmane Sonko mënoo ko évoquer di interroger ay loi parce que du début à la fin problème mu Adji Sarr Mame Mbaye Niang diffamation tel tel bu ko nitu yëpp dañ ci jaaxle taf seen gémmiñ mu mel ni ñaari code pénal moo am ñaari code de procédure pénale ay constitution ak ay code électoral yu wute mu am ay professeur droit yoo xam ne dañ jànge ci kaw asamaan si yor seen droit wu bopp di woote ay troisième man tudduma turu kenn dafa mel ni ñoo xam ne ay kuy juriste da naan façon droit bi fan la fan la. c'est parce que c'est lui le ministre la justice. man mais nekk nag koo xam par rapport ak euh, réaction yi nga. intervention yi nga xam ne moom ñoo dëkk. Euh, tëggeej te bu dee benn fan. Mhm. séq nañ ko si lu rafet. mais moom dafay incarner fonction. Mhm. maanaam waxu mais est-ce que incarner fonction aussi Ibrahima Sall war na la permettre xam ne wax loo xam ne du droit. honnêtement waaw def xam nga loolu. mooy wane politique baaxul. Mhm. politique baaxul ba am na ñoo xam ne étudiants yi nawoon nañ leen def leen référence dans a pays. mais bi ñu duggee ci pol damay imaginer ci nguuru Macky Sall ñi bu nguur gi jeexee ba ñu ñëwaat ci askan bi. maanaam yërëm naa leen. seen nekk nan lañ war a dundee ak population bi. xam nga loolooy waral mhm. des na tuuti. Mhm. di nga gis ancien ministre si tali Ndakaaru muy nëbbatu muuroo kol di nëbbatu ça c'est un deuxièmement di nga gis ancien président buy ñëwaat ci réew mi di nëbbatu di gis sëriñ bu taxaw Sandaga gi yor potam di yalwaan di gis ancien sëriñ Ndakaaru gi bu muuroo kolam nga romb mu piis la xam eh, xamee nga ma man la sëriñ diw ndeysaan ay ancien statut ancien sëriñ di nga ko gis si réew parce que sëriñ bu demee ba lañ koy doyee si société matalatu ko mooy taalibe yi buñ jaaxlee sëriñ si ñëw taxaw mhm. réew mi nag du ma ne sëriñ sëpp a bon mhm. am na sëriñ soo xam ne yàlla ak yonante bel te bu ñu déggee samay kàddu nangoo dégg-dëgg mhm. ñu xam ne li yàlla wax mooy ñuy wax dëgg di dox dëgg sa askan bu buñ koy néewal doole yow sëriñ bi taalibe yi di la jox ñaxam lépp lu baax ci këru diine yi nekk Sénégal ñun ñoo si def suñu xaalis ñun ñooy cotiser ñooy organiser ñoo leen di jox yëre ñoo yore tarixa yi ñun askanu Sénégal ñun askan boobu nga xam ne suñu ñàkk la ñuy jox sëriñ si ndax seeni maam seeni baay du ñoom de seeni maam ak seeni baay ñun bu suñu bët xonqee nguur taxaw di ñu dóor di def acharnement sonal réew mi ñuy jàpp nit ñi sëriñ soosu war nañu jël seen courage à à deux mains donte dañu am ay privilèges ci état ne état a arrêté justice jël responsabilité ne gi arrêté dérive yi nga xam ne yaa ngi koy teg ci kaw askan donc kon yow parti bi nga dissoudre euh, dissoudre dissoudre nga ko ci kaw doole ci pouvoiru état mais problème mu Ousmane Sonko daal pour ma tënkal la ko bu doon da nga bëgg ñu évoquer ay questions juridiques damay intro naan la ay article quatre cent quinze article tel article tel ñu indi ay questions purement juridiques mais mbiru Ousmane Sonko mësta nekk problème d'ordre juridique problème d'ordre politique la dans la mesure où problème d'ordre politique la moo tax ñu dissoudre parti moo tax ñu jàpp Ousmane Sonko yóbbu ko kaso politiquement Mamadou Dia ñu tëj ko kaso fukki at su ça c'est politique Ablaye Wade c'est politique ab Idriss Seck bu dul woon politique Ablaye du ko génn càcc yeewu suba ne Idriss Seck moo gën a baax moo gën a set kare problème mu Khalifa Sall Karim Wade bu dul woon problème d'ordre politique kon kañ le président Macky Sall du yeewu suba jënd omo ak orogewel wis jël jël éponge pour par bu bu jëlee njàmpe sax mën na leen gaañ. mu jël éponge fomp Karim ba xam nga Karim neex na Karim moom orgevel rek lañ koy soti mu set. mais Khalifa xëy na dafa ñuul foog ñu laal ci tuuti asib bomb ko ba mu set a solal yére bu weex ba pare yóbbu leen assemblée ne mosoo leen jël dara ci réew man maa jëfandikoo woon sama doole yóbbu leen kaso tey setal naa leen cela veut dire ce que cela dire donc loolu. résumé est-ce loolu tam du yàpp sénégalais yi. waaw jël jël jël justice Sénégal utiliser ko tëj ay nit tourner jëlaat justice boobu ragg leen loolu yàpp sénégalais yi la. buñ ko mënee wax. xam nga xam nga mënoo dañuy waxante dëgg ak lu xel nangu ñun ñëpp man respecté naa ñuy seetaan ak borom xam mhm. maanaam mënoo ñëw ne. Euh, ñi nga xam ne dañ leen génnoon ak càcc càcc ni ko l'islam def càcc ni mu grave cent trente huit milliards de francs ñaar moo am soit Karim Wade était coupable ñu lijjanti ci mbiru politique ou bien soit Macky Sall dafa user si ay pouvoir am tooñ Karim Wade soit Khalifa Sall coupable la sa lañ ko doon giñ soit Macky Sall dafa user de ses pouvoirs en tout cas bu si mën a am dañ leen génnoon càcc càcc boobu laa wax ak ah problème mu diffamation lu gën a garaaw cim réew nga sàcc alalu réew mi tooñ mm-hmm. ay junniy sénégalais ay millions ak yow nga giiñ nga nga joteex directement directement mm-hmm. ak benn sénégalais diffamation boo xam ne ay fen ay sos ay tappale jaay doole vingt neuf milliards yoo xam ne ba léegi sénégalais yi xamuñu fu mu dugg lan moo gën a garaaw donc à part de là si ngay xam ne mbir bi question d'ordre politique bi ma lay wax moo taxaw par kumba am ndey kumba amul ndey ndax ñoom ay màgget Karim Wade doomu màggetu politicien la mm-hmm. te màggetu politicien boobu moo yar Macky Sall moo ko jàngal politicien xalifa Sall it màggetu politicien la mhm. ñoom la seen biir xam nañ ñu ñuy lijjantee seen i mbir la preuve mhm. yeewi askan bi gis nga ba mbir ya tax safee neex sa pale ba mhm. Khalifa Sall wane na ne man politicien la ñoom buñ jëloon réew mi Karim Wade xalifa Sall la fi nekkoon mooy ni ci réew mi du fi deñ la woon du woon ni mu du woon ni mu dernière question laataa ñuy tëj chapitre boobu mooy lu jëm ci wàllum arrestation ciblée yi bu buñ ko mënee wax ñeel Pastef gis nañu le maire des Parcelles Assainies Jamil Sané ñu jàpp ko le lendemain ñu may convoqué a Dieye bi nga xam ne moom mooy mairesse bu Patte d'Oie moom itam ñu daal di ko mettre en garde à vue mu mel ni ñu bëri dañu jàpp ne gannaaw leader bu Pastef nañu xaal mbooleem kanfoore yi nga xam ne ci Pastef la ñu bokk dinañu dem kaso signal bi mooy Jamil Sané ak ki nga xam ne mooy mun a Dieye ndax ci moment boo xam ne tàmbale nañu aussi selon des informations que ñu ngi tëj li nga xam ne moom mooy permanence yi Pastef am biir Sénégal ndax xaaroo tey ñi nekk biir Pastef yëpp dugg kaso fekk ji seen leader. waa xam nga tëj mooy li ma la wax xam nga xam nga nit moom boo jéexalee ci àdduna. Mhm. dafa fekk yàlla pare say mbir xam nga Ousmane Sonko mi ngi yore bakkanam ba léegi. Mhm. cest à yàlla mi ko bind pareegul si moom moom la Thione Seck wax ne benn peppu ceeb di nga ko lekk door a dee. Mhm. comme Ousmane Sonko yàlla pareegul si moom le rendez-vous c'est deux mille vingt quatre cest à lii doole mi ñu jël ci réewam yeew ko yëpp ko ci bato yóbbu ko bind réew sept ans sept mois sept jours mm. te Serigne Touba bu ko neexoon bu tuflee bato bi tàkk du yéeg te yóbbu nañ ko loolu li may wax dimension spirituelle la kon tey ji waa Pastef yi Macky Sall dafa nekk ba léegi ci logique gu maanaam ñoom ñëpp mu tëj leen kaso dissoudre seen parti mais maanaam plus Macky Sall di jàpp waa Pastef plus Ousmane Sonko ñuy dégg ne boppam bëñam mi ngi metti kaso plus nit ñi di gën a mer plus nit ñi di gën a am sympathie plus nit ñi di gën a am yërmande plus muy gën a gañe ci ay voix par gis naa nit koo xam ne Ousmane Sonko rek la beñoon sama koñ daf ko beñoon beñoon beñoon Ousmane Sonko ba dama yaakaaroon ne beñoon googu du nen mais un jour man dama ñëw fekk muy naan kafe rek mu commencé saaga waa régime ma ne ko ah sa waay yow xanaa waa Pastef dañ la lancer cagnotte comme ñoom dañ ci gaaw ah, yow yow fi mu nekkee mu ne ma déedéet mu ne ma sëñ bi mu ne ma dama tëdd teg sama njëganaay mu ne ma ma xool sama diggante ak sama borom mu ne ma li ma doon wax ci kaw yëpp waxu politique la parce que boobu amoon na intérêt appaire amoon na fa benn xëy xëy ba nag contrat ba jeex mu frustré wu mu mer ndax nañ ko daxee moo rafetul mu commencé nag di yàkkal saaga waa nguur gi jox bopp Ousmane Sonko mu ne donte frustré wu naa mhm. mais fi gën a sëri sama xol xam naa ne man dama naa fëxoon rek mais xam naa ne Ousmane Sonko li ma ko doon sosal fii yëpp dara amu ci. te bëri na ci ay morom. te bëri na ci ay morom. Ah. suñu gantey mbokk yi ci tolluwaay réew mi Ibrahima Sall bu Azred alors sëñ bi Sall ah ay terroriste de dugg nañ Sénégal ba song ab bus ca yaraax buñ sukkandikoo ci Antoine Félix Abdoulaye Diome mi nga xam ne moom mooy ministre de l' intérieur gannaaw musiba bi am ni ki barkaati démb bi mu demee sur place li mu xamle mooy loolu acte terroriste la maanaam ay terroriste ñoo ko def. au moment où nag ñu ngi doon wax lu jëm ci wàllum sécurité bi nga xam ne Sénégal am na ko mais tey bu fekkonte ne terroristes yi dem nañu ba mën a dugg Sénégal songuñu lu dul bus Tata bu doon daw yëpp ay client ay milliards newu ci nekkul peut-être benn institut financier boo xam ne mën nañu wax ne banque la wala leneen est-ce que aussi du ñu jëlaat suñu sécurité remettre ko en cause. waa xam nga d'abord euh, man lu ma radical radical lu rafet dama koy rafetlu lu ñaaw dama koy condamner. Mhm. d' abord maa ngi condamné avec la dernière énergie di fee rek ñu jël ab kaar lakk ko ay nit dee ci par yàlla dafa fonk bakkan mhm. foofu laa si yem maa ngi koy ñaawlu di ko condamné ne loolu warul mën a am ci réew mhm. te d' accord ci loolu te cautionné wu ma lool mais bu loolu weesoo en tant que ministre de l' intérieur nga gédde nga ne rek am na ay terroristes yu dugg ci réew mi loolu nga wax mhm. d'après ni mu waxee nee na nee na acte boobu ay terroristes yi ñoo léegi bu ay terroristes duggee te terrorisme ni mu grave kon kañ loolu mooy ministre bi moom en tant que mu dëggal na ne réew mi amul kaaraange. amul sécurité. dëggal na ne sénégalais yi tëj leen seeni buntu kër. Mhm. sénégalais yi boo leen tëddee bu leen ndax réew mi amul kaaraange. moo tax des fois da ngay juum ci communication moo tax communication dañ koy jàng da nga koy mën. loolu benn la ñaar mbir mi bu amee nga teel a wax loolu da ngay bàyyi enquête muy définir. enquête muy définir ñu édifier sénégalais mais mënoo ñu jël mbir mi di ko gaaruwaalee parti bi nga xam ne moo di parti Pastef yàlla dong dëgg dong par parti Pastef ñoom dañ leen bëgg dem ci këru diine yi jaxase leen foofu yenn sëriñ si gëm ñenn ñi gëmuñu. Mhm. ñu dem présente leen comme ay terroristes. Mhm. réew mi nga xam ne fii la sëriñ Touba li mu def ci diine Alaaji Malick et cetera nga bëgg yeew ay citoyens sénégalais seen loxo set wicc kon de école Sénégal war koo ku fa jànge nekk inspecteur des impôts et des domaines ñu ne que liggéeyal mu liggéeyal réewum fukki at ak juróom mësul sàcc ñàdduram kenn mësul ni Ousmane Sonko sàcc na kenn ñi ko jege ñëpp nee nañ Ousmane Sonko du faat waxtu ñi ko jege muy ay jabaram ay mbokkam nee nañ Ousmane Sonko bu nekkul ak ay soxnam mi ngi jàng alxuraan ñëpp seede diine ju wér ju rafet jooju ñëpp seede ko ci moom muy kilifa diine yi ñi ñi mu jëflanteel ci wàllu àdduna ñi mu bokk loon mbiru ñu ne Ousmane Sonko mësta fowe ay julli ak lu jëm ci diine man benn waaye daje naa moom ci benn vétérinaire bu ñu wax Ibra mu nekk vétérinaire bu baax juuti ba tëngaj waa ji nee na ma cousin la ci Ousmane Sonko ñuy waxtaan ni rek mu ne ma dama la xàmmee mu ne ma grand mu yëngal boppam mu ne ma ñi xamuñu nee na moom da daan wax Ousmane Sonko naan ko yow da dof nee na Ousmane Sonko da daan naafile bu suba teel neen da nga daan wax boo bàyyiwul sa julli yu bëri yi da ngay def ndax ragal gu mu ragal borom parce que ragal boobu li ko dëggal mooy di fee bañ ko dénkee ñëpp ñi fi nekkoon ay moromam yëpp nekk ci nguur gi doon liggéey domaine seeni étage ñi ngi koy compter te moom sàccul yow nga bëgg ni kooku yow da ko bëgg yow tuumal lu ñuy wax terrorisme ak tuuma ni mu diise fàttaliku leen jurisprudence imam Alioune Badara ak ñu fi ji ñoon terrorisme yoon yeewu setal leen te kenn ndàmpu leen donc tooñ yàlla bëggu ko nit balaa ngay accuser say moromu jullit dara dang kay koy xool nga xoolaat ko mënoo jël parti Pastef nga bëgg ko diaboliser bëgg leen giñ de dëmm bëgg leen gis nga réalité ku ko nanguwul da ngay son uh-huh. maanaam le parti Pastef uh-huh. lu waaye di def ci réew mi te tuddoo Pastef sax du neex nit ñi maanaam ñoom ñoo yore bës bi ñoo yore xorom ci ñoo yore lépp te li leen Ousmane Sonko jaral uh-huh. leaderu politique mos ay militant mosuñu ko jaral Ousmane Sonko dog na bu mu jàpp mooy seul homme politique buy wër réew mi ñu koy jox àddee di ko tuddee ay doom loolu nit mosu ko am donc kooku baobab la maanaam ci politique réalité la ci politique boo xam ni kenn mënul ne Ousmane Sonko existé wul kooku nga dissoudre parte mhm. nga nga jàpp ay nitam yóbbu leen kaso. Mhm. par éligibilité day fekk bu nit kaso nit ki ne kaso am na droit wote dinañ ci yegg. nga def loolu yëpp giñ ko terrorisme tañ ko dem xam nga Ousmane Sonko luñ ko géejul ci réew mhm. moom ak waa moom ak ay njabootam ni ëmb nañu loolu rek lañ waxaloolu Ousmane mais wax ju ñaaw ju bot wax ju ñaaw nag olof dane dëkkul fi mu jëm fi mu jóge la ndax waa nguur gi fii la ñuy wër plateau yi di wax lu ñaaw nit génne kaso dof nday yore fitalam di xuuxal nit ñi procureur gis ko xanaa procureur dafa gumboon juge yi gis ko Macky Sall